bés ñëw réer a mbaa du ko publier e eh, ma ne eh, toog ko laal bañ mbaa ku ma jànn kon ma dugg ci biir amuloo amuloo ñu di la ñaanal nga lu ñu mas nga boor ne caw Euh, mbokk yi di am mbégte bu baax a baax di ànd ak yéen ci biir programme Sunugal 24 fa ndox daan taa ba boo demee fekk fa ay tepp tepp loolu laa leen tàmbal te loolu lay woy di ànd ak yéen ci biir euh, Sunugal 24 di am mbégte di ànd ak yéen ci lépp loo xam ne day bégal doomu aadama yi ci rawatina émission bu mag bii di Pello ak Sisteva may wër na ni ci biir réew mi tey nag dama dalal koo xam ne kenn dootu ko présenté mu di kan euh, am ndaw l'international ki nga xam ne yaakaar naa ne def na lu ne ci biir mi tungu ne la rek tey bu ma fi waxal lu ma def <laughs> am. asalaamaaleykum maa ngi lay fay Eva di nuyu képp koo xamante ne ñu ngi seetaan ak Sénégal sunu Sénégal 24 am àdduna wërngal képp fooy mën a nekk maa ngi lay bëggee te di lay ziar naa leen man am ndaw seen artiste maa leen di bëggee fii ci suñ Sénégal 24. am taamoo woon di ma di ma man. Mhm. non tey tey am noo tàngaguma. Ah. tey dama bëgg maayo ñu waxtaan suñu thème li nga xam ne nii moo ñu fi andi waaw ba ci <laughs> kanam fin bi ma tàggoo ñu daal <laughs> waaw noonu euh, lay def noonu lay demee sax te itam mm. te lay doon ñu koy dalal ci biir euh, Sunugal 24 du fi du fi gan miin na fi ah mm. parce que fi jël naa ko fi mu def émission boo xam ne mm-hmm. buzz la macha allah effectivement am ma waxati ci bës beeg bayre bi am loo sangoo parce que gis naa la temps yi nga ne da ngaa dewoon Casamance jëndi géej gi bu sew géej yéet gi waaye gëmuma loolu <laughs> ah, mais war nga war a gëm noo gëm loolu parce que bu ndox tuuroo an baax faydas mm. waaw da ngay dem uti dem jaayi pourquoi pas géej géej diwtiir beeg tuufe géej yéegi consommé local la dañu. sérieusement jaayi géej. si si dama ko jaayoon <laughs> <laughs> ba pare ñu pàccoo bénéfice bi. yaa ko très neex Eva. <laughs> am ndaw ñu génn ci événement bu méttee métti boo xam ne mhm. wax dëgg yàlla sénégalais yëpp dund nañ ko. Mhm. Euh, kenn ku ci nekk sa rongoñ dal na sa dënn. Mhm. yaakaar naa ne war ngaa jëli li may bëgg a wax mu di. génn ko àdduna ak papa Thione. suñu papa ñu koy jaal àdduna yëpp di ko jaal ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay doomam yaakaar naa ne foofu la ñu waroon njëkkee waaye xel des fois day fattu. di ko jaal Waly di ko jaal sama papa Ousmane Seck woo naa ko fi wax dëgg yàlla mu doon nit bu gëm yàlla papa ñu ngi lay jaale ki nga xam ne di suñu papa Thione am nga nekk artiste ñàkkul nga mës a jëflante ak papa Thione ndax gis nañ la ngay ànd ak ki nga xam ne moom moo di doomam di Wally Seck sa manager di Binta itam bokk daanaka ci famille boobu naka nga ko dundee demu euh, Papa lan la la jàngal c'est que dem Papa àdduna bi ñëpp àdduna wërngal këpp ñëpp la laal mhm. Papa doonoon na koo xamante ni monument la ci digg réew mi kenn du ko dindi mhm. te rek jëf du deñ jëf boo ko defaree ba mu riis mënta dañ mm-hmm. boo fi jógee sax du dañ mariasin may sa biige ni mu ko defee dafa riis kon mënta dañ mm-hmm. may jaale suñu yaay jaaga di jaale bépp koo xamante ni faramaaren nga àdduna wërngal këpp rawatina ñoom muumi mm-hmm. jabaru bugaan gay dani waali sekk faramaaren bi muñal li la dal yàlla day natub jaam ndax gor bu muñee li ko dal yàlla fay ko ko ba mu bég waaw may jaale ñëpp papa coon jëfam du dañ ku baax dem na suuf daa mën a jël ndax suuf bu doon génn la mu jël Eva mm-hmm. di nga gis ko jàpp nit ne ko dootoo dem mm-hmm. ak mën a jël mm-hmm. mën a jël li yóbbu gën ngi mbindeef yóbbu fi suñuy maam ak suñuy wayjur yu baax yi bàyyi yóbbu Papa Thione yaakaar naa ne bàyyiwuñu fii euh, ma ma laajaat la rek li nga xamante ne ni moo di dem ak euh, génnu àdduna Papa Thione ak ni mu bettee mu metti ñëpp ba tey mënuñu gëm ne Papa Thione dem na lan la war a jàngalaat artistes yi ah, àdduna yaa du sunu kër àdduna yaa dëkkunu fi dañu fee gane si waaye ku sandaa fees da ngay ñibbi tey tey koo dajal war nga kaa cëral koo manal war nga kaa dimbale te danga koy dimbale te yàlla rekk tax ndaxte loo fi mënta am ak noo mënta mel bés dana ñëw dangay ngay wéet sa bàmmeel dara du la topp dul sa jëf ju rafet xanaa percal bañ lay lëmasee. Mhm. sept mètres yi. dañuy faral di gis ngay ngay woy genre thème yooyu noonu di ko taasu. Mhm. waxante lu baax defante lu baax. ba ci sa mhm. single bi nga xam ne moom nga mujj génne. mu di connexion. réseaux sociaux yi. di ci di ci ñaaxaat nit ñi que ñu ñu bañ di yàqante. lan moo waral ñuy gis à chaque fois am daw nekk nit boo xam ne day jàngal askan wi ci bëggante. waxante lu baax loo ma sa dund la wala. <laughs> waa xam nga nit du yor jikkoom ma Eva. bi moo ko toll. Eva booy xool da nga naan sax àdduna bi day dafa dafa jege ci tukki suñu xol yi tuuti moo ci des. axiru zaman suñu xol yi tuuti moo ci des. xoolal ren ni ñu dundee ak feebar bu bon bi nga xam ne moo ñu gane si. di jël nit ñu baax ñi benn par benn di leen di yóbbu. war nañoo jàngal lu ah, bëri de. nañoo jàngal lu bëri ku nekk am na ki la ki nga man mhm. ku nekk am na li mu man ku nekk xam na ki ko man nit ku nekk li nga am yàllaa ko dogal ci si yow munoo fexe ba doo ko jot munoo fexe ba doo ko jot na jaam nangum ndogal nit sàkku njiit yàllaay sàkk njiit waaye yow mi jiitu boo jiitoo na nga xam ne dañ laa jiital nga def yëfu ko jiitu xam nga la mooy yëfu ko jiitu yërëm yiir mais jël nit yàq ko wili pand ko ci internet mhm. dafa ñaaw mhm. lañ defaraat xel yi waaye am ndaw euh, yaakaar naa ne euh, euh, ba tey dañuy des ci même sujet bi mu di mhm. waxante lu ñaaw defante lu ñaaw mhm. Sénégal dafa mel ni tur wiñ ko ngénte woon tuddee ko ko daf koy bëgg daf koy bëgg ñàkk <laughs> tur waay bëgg dee xamuñu sax ndax gas nañ tur wi ba suul koom déet mu di réewum jàmm ak réewum teraanga mhm. Sénégal benn bopp la mu mel ni bopp boobu dañ koo bëgg a xar ah, ñu séddoo ko ku ne jël ci sa wàll waral defante lu ah. xaw ma fu ñu jëm <laughs> ah ah waaye yow gaa baax ñu fi nekkoon te daan def lu baax ñu ngay dem waa réew mi toog ci digg réew mi rek di fi xuloo fu ñu jëm ah. àdduna yaa di sunu kër àdduna yaa dëkkunu fi dañu fee gane si ñun rek ku sa fees nga ñibbi tey waay waay koo daje te cëralal koo maanati dimbaleel dimbale ko te yàlla tax moo fu ñu <laughs> xoolal ni sàkku niir yàllaay njiit ku nekk la nga am sa ko liggéey sa baay ba doo torox fu ñu jëm xaw fu ñu jëm waaye yow ba tax lu gee lu fa ne daal booy daw xamal fi ngay jaar xaw ko kat xoolal te tax yàgg naa ami dëkk ànd akub Garga Mbossé bu jàppee dalay gaañ dinaa la waxal yi ñaar gis nga bu ko diggante man mi maa ko waxal muñalal yërëmal dimbaleel ndax kat yàllaa la ëpp doole te moo la sàkk kenn manul kenn amul feebar bi ñëw gën a su suñu réew moom rek ak man nañu àndandaat booloo te bokk ndey ak baay ndax jaam ak pexeem yàlla dogalam yàlla defee li ko neex te ci dara va pourtant bu ñu àndandoo bon benn bokku ndey ak baay loolu moo ñuy jëriñ Sénégal gi ñun ñoo ko moom buñ ko xar ñaar bu ñu wengal gaal gi lu ne ku ne ci bu ñu ànd booloo rek doon benn mooy suñu jëriñ xanaa xamoo ñaara man kenn te ñettu di boole jàmm ak pexeem dogalam yàllaay defee lu ko neex jàmmanu ci dara. Eva jëlal sa cër. déglu ma de déglu ma rek de. yow rek laay déglu. jëlal sa ma jël sama cër ko defee noonu nga jël sa cër gi jël sama cër gi rey nga ma nit ku ne na jox nit ki ni mu yellool nit ku ne na jox nit ki ni mu yellool nit nit ki dootul métti dootul dootul métti doom ju ci baax rek sa baay ree fu muy méttee macha allah euh, yaakaar naa ne euh, doon na message boo xam ne ku ne war nga koo déglu nga wax ci tolluwaayu réew mi. Mm-hmm. mu di message booy lancé li fi jot am jamono yi ci ginnaaw gis nga ko. Mm. réewum Sénégal comme ni ma la ko waxee rek. jafe-jafe yi ñu fiy dund bari na te am dara waralu ko lu dul ndëgg sërëx gi ñuy defante yéenante lu bon foo toog yàq sa derub moroom ana fi jot a xew wala ci lu ñu jëm lan nga ñu ci mën a wax lan mooy euh, position bi nga xam ne ci la sénégalais yi war a taxawee ba delloowaat suñu tànk fa nga xam ne fa lañ ko tegoon mu di jàmm ak salaam ci suñu réew mi di Sénégal. ñun de dañu amoon tur boo xamante ni dañu ko daan wax Sénégal réew de la Teranga pays de la Teranga. Mhm. Sénégal réew Teranga ñun moo doon suñu bàkku mais dafa dem ba mu gi ñun dañoo gëmatu ne Sénégal réewu teraanga la mm-hmm. nit ku ñuul dafa war a instant bi ñu toll nii ñun déedu nit ku ñuul yëpp ku nekk da nga war ka nga dendal nga jox ko loxo ne ko baal ma mm-hmm. ku nekk la nga nekk nekk ca mën ngaa nekk sa te nga am mm-hmm. teewul keneen am ndax yàlla dafa def ay mbuusam ku nekk bu demu lekkul yàlla di nga jot sa mbuus waaye ma jot sama mbuus jotagoo sa mbuus nga ne déedéet yàlla teg ma lim ma teg ma ne déedéet li fi amoon nii yëpp amatu fi woon léegi dangay dugg ci TikTok bi gis n'importe quoi mm-hmm. sacrifice yeeg liggéeyante beeg léegi soo moytuwul sax nit dina la fekk nga toog mu yëkkati nen na la ko bëcc mu toj sa kaw mu yàq la dara nag jaru ko fi man man dama ne man dara jaru ko fi man kuy xëccoog man yàq nga ko kuy ñiiranteeg man yàq nga ko kuy naan maa man lii aama man lii yàq nga ko ku nekk li nga man nanga ko def ndax yenn saa yi sax nga ñëw ci xew nag kii andi na loo xamante nii sama wërsëg la maa koy lekk kii andi na loo xam ne sa wërsëg la yaa koy lekk te ñun ñoo bokk li ñuy liggéey marché ba dangay gis kii toog kii toog ngeen bokk benn place ku ne di am nga foog ne euh, tollul fi mu nekk nii Sénégal ñi mën nañu dimbale xoolal ren ñaata nit ñu baax ñoo génn àdduna ren ñaata nit ñu baax ren liggéeyuñu suñu xol yi tuutee ci des barki ñoom yonent bi nañ joxante loxo àdduna amul solo. Mm-hmm. Euh, am ndaw euh, euh, ñu wax ci sa diggante ak Wally parce que gis nañ bu yàggul. Mm-hmm. nga participer ci benn singalam boo xam ne def na ko Sénégal yëpp bëgg ko est-ce que mën nga ñu ñëwalaat ci ndaka nga def ba participer ci son wu Wally boobu après lan nga ci am loo xamante ne ni bon yokk na peut-être sa visibilité wala mu yokk sam koom wala ndank ndaka nga ko dundee parce que wax dëgg yàlla son boobu def na buzz te wax fu ñu ne Wally rek ci son boobu mën nañ fa wax am nga fa nga xam ne moom la ñu la soxlaa woon à 100 pour waaw dafa doon xale bu baax Maria Sène may sa biige jëfam dafa mën a denc ci biim réew mi yow nit mën na wax baaxu nit te tuddul baaxu waalo sekk ci biim réew ah social baax. gëm boppam nangoo gëm boppam. Mm-hmm. mën a def teraanga. Mm-hmm. di jàppale. Mm-hmm. di dimbale. non bu nekkee ne dafay def son. invité ci son bi. damay ñëw. parce que la mu woy ci son bi woyu baayam rek la woy woyu baayam la woy dëgg bu woyee woyu baayam tamit woy ma ci mhm. li ma ci man mooy def def ci lu rafet wax ci lu rafet mhm. te nam ko woyee rek laa ko waxee macha ñàkk ki ñaan gi nga def ba réew mi yëpp di ko woyantoo mhm. xam nga ne ñàkkoo loo woy de woy nga sa woyu baay yusu waaye dóor sa baay doon sa baayee ko gën Maria Arsène solal nga aar bi tubay ba mu jot na ko mag ña solee woon jëf du deñ sa jëf mënta deñ xam nga dóor sa baay nga nekk sa baay la mu bëgg yow nga ñëw fekk si ko sa di ko def ak amour di ko def ak bëgg dóoroo ko dóor sa baay mënta weesu di ngay dox di nakk su dul noonu sa baay nekk ci lii nga nekk ci lële di def nakk su dul noonu mais yooyu dañuy dëggal côté boobu ko wax dëgg yàlla nit bu ñàkk iñaan nga boo ñàkkoon iñaan waali du du fi bàyyi ñëpp dal di lay tànn ci ci dangaa foog ne waali sekk sekk nopp garmi la yor waali sekk nopp garmi la yor ñaari waali sekk mu sentir la ci ma dugal la ci. Mm-hmm. ah non loolu lu ne la. cin bokkul cafin. cin bokkul cafin. loolu sa yëf bokkul cafin <laughs> cin bokkul cafin dañ koy teg dañ koy teg ba mu naaj. macha allah teg ko nañ ko war a tegee. Uh-huh. parce que moom ma nga xam ne ni mooy woy mm-hmm. woyam boo dul boo boo dee cuune doo ko woy ndax waa ma dafa mën a woy mm-hmm. waaw. naqar bi nekk ci moom yàlla na ko ko yàlla teggal ci barke Seex al lislaam ñëpp a ngi koy bokk ak moom yaa ngi ci yoon mm, mm. Euh, duñ la fi teelu bari dañu koy daal di jeexale ak li nga xam ne moom moo di say projet parce que en temps yi raar nga torop torop ba ni ma def ba am la sax nii nii jaaxal na ma non yow moom yow moom yow moom macha allah newul ñàkkul nga am benn butéel boo xam ne danga ma faa saañ parce que damaa jàpp ba nga xam ne ni ñu may woo yow da nga doon tam suma rakk joo xam ne Eva da nga ma bëgg yow suma doom nga da ma bëgg mhm. da ma bëgg te tamit nit ku nekk nim ni nga ko def ni mu la defa tax waaw xat na trop mais boo ma woowee damay mel ni taxi mhm. dama arrêté woon temps yi interview yeeg affaire yooyu yëpp parce que damaa mhm. nekk def album waaw damaa nekk def album moo taxoon temps yi mu nëbbatu ci lépp xam nga yaa ngi naan dama laa gëj a gis si TikTok beeg yooyu eh, noonu waaw mais xam nga boo toogee dëxañu ñun def nañ fi lu ne waaw wax dëgg yàlla son waale bee liggéey bi da ciy baax. waaw son mhm. waalo bee ngi nii ruusagul. Mhm. dara jarul fii. nit ki da ngay teey quoi. Mm-hmm. xam fi nga koy defee xam heure ba jot nga def ko. Mm-hmm. et bu la nit ñi di bëggee defal album boo xam ne da nga koy teg say fans ñu lay bëggee. Mm-hmm. ndax li ci xef li ci bët li ci xel a ko gën. album bi yaa ngi koy waaj wala pare na. non xam da ngaa dof rëkku <laughs> ba mu mel ni ketem bi xanaa da ngaa dof Eva. macha allah looloo ngi ñëw maa ngi waaj looloo ngi ñëw. Euh, macha allah merci beaucoup euh, di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy euh, seetaan donc bu doon koo xam ne tey jii Sénégal la ko bëgg comme ni ma koy waxee rek dalal am ndaw ndaanaan temps bi nag doyal ci am mais dama leen jox dig daje rek beneen yoon incha allah dina ko indiwaat fii ñu waxtaane ko Pello ak Sister Eva wala ñu génnaat ci beneen facette am bu fekkee am na loo ñuy tàggoo mu yéen bërëx ba ne lu fa ne waay yow bërëx ba ne yàgg naa ami dëkk bu ànd ak garga mboose bu jàpp ñàppantaan la ma toogal e bul dem sa yaram yaramu gone la mais bërëx gënee lu fa ne Eva tamit tamit tamit ayaw tamit. maa ngi bëgg ñu ngi doon seetaan ku ci nekk sa trop sa sant. Mhm. na ci xefi na ci bëdee ko gën te tuuxal bëggante noo tàggali ko. léegi léegi wuy ma mhm. dama bëgg nga jàllaleel ma fii benn message ñiy seetaan Sunugal 24 mhm. lan nga leen di wax. ah mais ñàkk seetaan Sunugal 24 óorul di. site boo xamante ne day invité ay nit ñoo xam ne ay nitu marque la ndax site bi marque la. di def lu def di wax lu wax di dem fu demu loolu ba koy dundee defal na gi fépp bul toppatoo bul faale bul sóoraale sax e dama sociaux ah. problème Sénégal ah. réseaux sociaux phénomène Sénégal eh. ah. ñaawteef ci net bi laa leen di tegal nii de di laaju ay foo nga ubbi sa site dugg ci sama compte daa di ma yële ba ma set yóbbu ma ala il ñaata deru jigéen la fi yàq mënatu ko defar ñaata sëy la fi tas lim ba bëri nga nekk safar nangu mu di lay futti ba di la photo ba sow réer a war a am mbaa du ko publier ma ne toog ko laay mbaa ku ma jànni kon ma dugg ci biir amuloo amuloo ñu di la ñaanal nga xëy wasin ñuy taaxirlu ak a sant lu ñu mas nga boog ne jaw toog ko laay bañ mbaa ku ma jànni kon ma baay baay moo yaa ngi may gaañ dama wal bi kat doo toog laa laa yow doo toog lii toog toog daal tamul tamit tamit tamit aywa tamit